أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla mbokk yi xutba bi passé ñu ngi doon fàttali lan mooy laa ilaha illa allah tey ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ci yoon woowu ñu jiitaloon ci lañ fas yéene delluwaat mooy tey ñu bëgg ànd ak yéen fàttalante ak yéen lan mooy sharti laa ilaha illa allah ñun ñëm ñu bokk ànd xam ne laa ilaha illallah dafa am ay baat yu mu làq dafa am maana waaye dafa am charte ñun ñëpp ñu bokk xam ne laa ilaha illallah moom mooy miftaahul janna laa ilaha illallah mooy caabi ji nga xam ne moom mooy ubbi aljanna waaye xam ngeen ne caabi saa yuñ ko waxee sa xel dina dem ci ay bëñ caabi ju amul bëñ du mën a ubbi waaye bépp caabi boo xam ne biñ la koy jox dafa am ay bëñ dana mën a ubbi bunt ba nga bëgg a tijj laa ilaha illallah nag moom mooy caabi ji nga xam ne moom mooy caabi aljanna mooy caabi ji nga xam ne boo ko amee nga tëyee ko ni la ko yàlla joxe nga jëfandikoo ko ni la ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wone soo ko tëjee soo ko dugalee ci bunt ba nga ko bëgg a tëjji bunt boobu dana ubbeeku mbokk yi laa ilaha illallah moom mooy mbir mi nga xam ne moo tax yàlla bind asamaan ak suuf comme niñ leen ko waxee woon ci xutba bi passé sarta mi nag sart bi ci gën a njëkk gën cee dëgër moom mooy al ilm mooy nga am xam-xam bi al ilmu bi maanaha nga am xam-xam bu leer ci lan mooy laa ilaha illallah nga yëg ne moom day dàq képp ku ñuy jaamu wala lépp lu ñuy jaamu te du yàlla tabaraka wa taala waaye moom day saxal ne yàlla rek lañ war a topp nafiyun wa ithbaat laa ilaha nafi illa allah muthbit nafi dafay dàq jami ma yubadu min dunillah ci lépp lu ñuy jaamu te du yàlla waaye wa isbaat day saxal ne yàlla dong subhanahu wa taala moom dong mooy ki ñu war a kennal moom dong mooy ki ñu war a jaamu moo tax borom bi wax tabaraka wa taala wax ko ci suratu muhammad ci ay 19 mu ne faalam annahu laa ilaha illa allah yow jullit na nga yëg ne na nga am xam-xam bu leer mu leer la wóor la ne ne yàlla tabaraka wa taala dong moom mooy yàlla ay laa maabuda fi samawati wal ardi bi xaqin illa allah waru ñoo jaamu ci kaw asamaan waru ñoo jaamu ci suuf ci dëgg ku dul yàlla tabaraka wa taala yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne man maata wa huwa yaalam annahu laa ilaha illa allah daxala al janna képp koo xam ne ci jullit ñi ci waxtu wa ngay faatu yaa ngi gëm di seede di wóolu di gëm di dëggal ne yàlla dong mooy yàlla képp ku faatu ci loolu di nga dugg aljanna ñaareel bi mbokk yi mooy alyaqiin mooy nga am yëg-yëg bu leer alyaqiin al almunaafi li shakki nga am yëg-yëg bi nga xam ne dafa wuute ak di sikki sàkka wa dalika an yakuna al qalba mustayqinan biha bila shakk sa xol bi leer nga am kóolute am yëg-yëg ne yàlla tabaraka wa taala moom dong moom mooy yàlla innama almuminuun alladina aamanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabu ay lam yashukku julli dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne gëm na yàlla gëm na yonent amu ci benn sëkki sàkk amul lenn lu muy dengi dengi ci xelam wala ci xolam wala lu muy naataable di ko dendaleeg yàlla tabaraka wa taala yàlla mi mu gëm ginnaaw bam ci amee xam-xam dafa am ci yàlla kóolute moo tax bu ñu jàngee histoire diine danañ gis ne mboolem yonante yi la leen musal texeel leen mooy dañoo am kóolute ci yàlla dañoo am yëg-yëg ci borom bi tabaraka wa taala xoolal Moussa keroog ba ko Firawna jañee ci pu- ci géej gi nit ñi naan ko ñoomu àndaloon naan ko inna la mudrakun danañ ñu dab danañ ñu rey mu naan leen kalla inna ma'i rabbi gis nga yëg-yëg a ngoog ko yëg-yëg mu ngoog bu àndul ak kóolute xam ne boroomam tabaraka wa taala mi ngi ànd ak moom mu ngi am kóolute ci yàlla tabaraka wa taala loolu la yonent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam loolu la saxaaba yi waroon keroog ca xaawi xira yonent yonent baa ngi naan Babacar ah yàlla mi ngi ànd ak ñun képp ku àndal nga yàlla tabaraka wa taala doo tiit doo jàq saxaaba yi keroog ba leen gaa yi ne tey ngeen dee gaa yi dajaloo nañ pour rey leen lan la ñu wax hasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla doy nanu kon jullit dafa war a am yëg-yëg ci borom bi tabaraka wa taala dafa war a am kóolute ci boromam tabaraka wa taala xam ne lépp lu mu dugg lépp lu mu nekk lu mu métti métti lu mu jafe-jafe amal kóolute ci sa borom ne sa borom mun na la cee génne lépp loo soxla amal kóolute ci sa borom ne mun na la koo sottil jullit noonu lay mel nga am yaqiin gu leer mooy ñaareelu tomb ci baati laa ilaha illallah baat bi du la mën a jëriñ boo ko xamul baat bi du la mën a jëriñ boo ci amul kóolute ñetteel bi mooy alqubul li maqtadathu hadihi alkalima bi qalbihi wa lisaanihi baat bi foog nga nangu ko foog nga nangu la mu ëmb foog nga nangu la mu àq ci sa xel ci sa xol ci sa làmmiñ borom bi tabaraka wa taala mi ngi nettali bokkaalekat yi mu ne innahum kaanu ida qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruun wa yaquluuna a inna la taariku alihatina li saairin majnun buñ leen ne xoolal yéeféer yi suñ leen ne la ilaha illa allah gëm leen yàlla wóolu leen yàlla yaakaar leen yàlla ñu ne ndax dangaa bëgg ñu bàyyi sunu maam yi ñu fi bàyyi woon ndax dangaa bëgg ñu bàyyi sunu yàlla yi nga xam ne moom la sunuy maam gëmoon yéen da ngeen a bëgg ñu bàyyi sunu yàlla yi nga xam ne sunuy baay ak sunuy maam moom lañ doon topp topp woykat bi kan la ñuy wax woykat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu ñu gam-gam lee yéeféeri démb yi ak lenn ci julliti tey dañuy gis ne julliti tey pas-pas ya ñu am mooy pas-pas ya yéeféeri démb amoon tey bëri na ci Sénégal boo leen nañ jaamu yàlla nañ kennal yàlla nañu màggal yàlla ñu ne la nu ñuy def mag ñi allahu akbar xoolal nañ jaamu yàlla nañu topp yàlla nañu kennal yàlla nañu wéetal yàlla nga dégg ku le ne kon nu ñuy def mag ñi léegi lu ñu bëgg a wax foofu lan lañ bëgg a denc foofu lu ñu bëgg a làq mooy ndax mag ñi dañoo am martaba yi borom bi tabaraka wa taala la hawla wala quwata illa billah kaburat kalimatan taxruju min afwahim rëy na màgg na baat bu ñuy génn ci seen gémmiñ di dendale yàlla ak kenn yàlla kenn du ko dendale kenn kenn du ko dendale lenn anzilu naasa manazilahum nit ñi kenn ku nekk nañ ko wàcce ci place am amma borom bi subhanahu wa taala kenn waru koo dendaleeg lenn mbokk yi ñetteel bi ci maana laa ilaha illallah ci chartam yi mooy alqubul foog doomu aadama yi mu nangu doomu aadama bi jullit bi mu nangu baat gi baat bi la bu indi foog mu nangu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla tabaraka wa taala digal na ma umirtu an uqaatila annaasa hatta yaqulu laa ilaha illa allah faman qaala laa ilaha illa allah faqad asama minni maaluhu wa nafsuhu illa bi haqqi lislaam wa hisaabuhu ala allahi azza wa jal yàlla tabaraka wa taala moo ma jox ndigal moo ma sant ma xeex ak képp koo xam ne bañ ngaa wax baat bi képp ku ko wax sa alal ñoŋ na sa deren ñoŋ na sa bopp ñoŋ na képp ku ko wax rek sa alal ñoŋ na sa bopp ñoŋ na lu dul ci àqi lislaam mooy soo reyee nit ci lislaam dañ laa war a rey soo lankee bañ a joxe azaka dañoo war a foqarti azaka joxe ko loolu mooy illaa bi xaqil islaam kon mbokk yi nañu yëg ne ab jullit njullitam du mën a mat du mën a nekk dëgg lu dul mu am xam-xam ci baat bi lu dul mu am ci kóolute waaye lu dul mu nangu baat bi la mu andi su fekkente ne nangu na baat bi la mu andi rek mbir yëpp daal di leer ci moom bu ko nanguwulee dara du baax ci moom juróomeel bi mooy as sidq al munaafi lil kadib mooy jullit bi na dëgg na nangu baat bi dëggal ko dëgg goo xam ne dafa wér këng dafa wuuteeg fen wa huwa an yaqula sidqan min qalbihi na wax ci xolam mu dëggu comme ni ko yàlla tabaraka wa taala waxee alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkadibin وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار بقي برمي تبارك وتعالى نينا ndax nit ñi dañoo yaakaar ndax nit ñi dañoo njortu dañ naan gëm nañ yàlla rek yàlla daal leen di bàyyi yomb na trop gëm naa yàlla rek gëm naa yàlla te doo def dara kenn du la nattu kenn du la examiner ah gëm naa yàlla rek ñu bàyyi la nga koy wax ci salaam miñ yomb na trop boo gëmee yàlla mu nekk dëgg foog yàlla xool la ndax li nga wax dëgg la ndax yàlla nee na ñi ñi jiitu woon waxoon nañ baat bi ma nattu leen yàlla nee na dinaa leen nattu ma xam ci yéen ñi dëgg ma xam ci yéen ñi nga xam ne ay fenkat lañ tey booy xool nit ñi ñu ci bare bare bari bëri na lu ñuy taxaw di wax baat bi waaye boo xoolee seen i jëf mu wuute trop loolu la ñuy bañ ci julit amul benn julit bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne taxaw nga seede ne yàlla kenn la muhammad jaamu yàlla yonent yàlla la nga dëggal baat bi lu dul ëllëg boo faatoo yàlla araamal sa yaram safara kon ndeke jullit yi li leen dugal aljanna yomb na trop trop trop trop li leen dugal aljanna jege na leen trop waaye maanaa yi lañ dul dégg charte yi lañ dul matale mbir nag buñ la ko joxee xamoo maanaa bi xamoo charte bi pour nga jëriñoo ko lu jafe la ci yow looloo tax ñu war a góorgóorlu suñu kéemtalaayal kàttan ñu xam mbir yi charte yi ciy laxasu ñu xam mbir yi maanaa yi ñu xam mbir yi la mu làq ñu xam mbir yi la ñu nangu ñu xam mbir yi la ñu bañ suñu xamee lii rek dinañ am jàmm àdduna ñu am jàmm alaxira aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي جرم بنيل شرط موم موي الإخلاص موي جلد بفهم نانغو سلال باد بي وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع الشواب شوا شواعب الشرك وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه وقال صلى الله عليه واله وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل mbokk juróom benneelu sart ci sart la ilaha illallah mooy sellal baat bi foog jullit bi nangu koo sellal te sellal gi mooy lan mooy ay jëfam mu nangu sellal yéene yi wéral ko setal yéene bi ba bu ci bokkaale laxasu bu ci ngistal laxasu bu ci bëgg-bëggu kenn laxasu bu bu ci bëgg ngërëmal ma sàmba bu mu ci ëmb ëmb ngërëmal ma demba yàlla rek ngërëmal yàlla rek wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yàlla man day mbir mi def naa ko ngir yow ngir nga kontaan ngir yàlla rek bul def ngir kenn yàlla nee na digaluma nit ñi wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diin nit ñi santuma leen digaluma leen benn mbir lu dul buñ may jaamu nañu sellal diine ji yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na asadu nnaasa bi safaati nit ñi ki ci gën a jege ki ci am ëllëg sama kontante ki ci am ëllëg sama yërmaande ki ci am ëllëg sama ngërëm mooy koo xam ne nee na laa ilaha illa allah ba pare muxlisan min qalbihi bi muy wax laa ilaha illa allah mu ngi ko sellal ci xolam mu ngi ko setal dendalewu ko ak lenn loo xamante ne daf ko koy yàqal képp koo xam ne gëm nga laa ilaha illa allah nga wéral ko nga sellal ko nga namm ci jëmmu yàlla tabaraka wa taala kese yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ëllëg yàlla tabaraka wa taala dina araamal sa yaram ci safara mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leeralal nanu jàngal nanu mbir yi naka lay selle ci yàlla tabaraka wa taala ba ëllëg suñ ci sooboo ñu daal di dugg aljanna juróom ñaareelu charte mooy ma almahabbatu li hadihi alkalima altayiba mooy jullit bi na bëgg baat bii na bëgg li ëmb baat bi na bëgg ñi gëm baat bi ñoñi baat bi nay ànd ak ñi dëggal baat bi na nekk na ñooñu nañu nekk ay mbokkam ñooñu nañu nekk ay xaritam na noonu ñi noonoog baat bi na weddi ñi waddi ñi weddi baat bi loolu mooy mbirum jullit sooy dëggal da ngay dëggal ñi ànd ak baat bi sooy gëm nga gëm ñi gëm baat bi sooy xaritoo nga xaritoog ñi gëm baat bi sooy noonu noonul ñi noonu baat bi borom bi tabaraka wa taala wax na ko ci alquran mu ne wa min annaas man yattaxis min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla soo waxee yàlla rek ñu mer wa iza zukira allah wahdahu izma azzat qulubu allazina la yuminuna bil axira buñ ne yàlla rek seen tension yi monté allahu akbar nga gis ñu commencé am crise cardiaque lu tax parce que dañoo tudd ku dul yàlla waaye bu ñu waxee allahu akbar subhanahu wa taala nga gis seen xol yi lemu di banku di bañ seen tension monte bu ñu tuddee kurul yàlla ne nga gis ñu kontaan di mbëkk ay miir di mbëkk ay pot lampe di yuuxu di say mel na ñu gis ay jinne tey loolu mooy sunu melokaan doomu aadama yoo xam ne bëgguñu yàlla kese so donc da nga koy dégg ci dëkk bi ñu ne yàlla kese dafa ri tax yàlla kese kese dof diw de dof la lu tax dof la parce que yàlla kese la gëm amoon nañ sunu benn xarit papam gaañu ñu suuli bàyyi ji ñëw ñu ne dañuy dëj mu ne fii kenn du fi dëj ndax dëj du lislaam nit ñi wax jëm kaw jëm suuf mu lànk ne kenn du ko fi dëje ñu daal di woo ay nit pour ñu waxtaana moom ay mag benn mag ci biir mag ña daal ne kii dof la bàyyi leen ko li mu wax loolu lay def kii dof la ndax moom yàlla rek la gëm gis ngeen diw dof la parce que yàlla rek la gëm loolu mooy tey sunu mbir loolu mooy sunu melokaan yàlla nañu yàlla yërëm mbokk yi jullit foog mu bëgg baat bii bëgg li baat bi ëmb bëgg ñooñu baat bi takkoog ñi ànd ak baat bi waaye noonu lànk weddi ñépp ñi nga xam ne dañoo weddi baat bi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ñett ku ko seetlu ci sa bopp am nga bànneexu ngëm yàllaa ko yonent bu la gënalee lu dul yàllaa ko yonent nga bëgg nit doo ko bëgg lu dul ngir yàlla nga lànk dellu ci ci kéeféer comme ni nga lànkee ñu laxas la ba nga dëgër sànni la ci biir safara ñett yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na képp ko seetlu ci sa bopp am nga màndarga ngëm yàlla yàllaa ko yonent gënal la lu dul loolu nga bëgg ki ngay bëgg doo ko bëgg lu dul ngir yàlla nga lànk ñu sànni la ci kéef ci safara comme ni nga lànk dellu ci kéefér comme ni nga lànkee ñu lay dugal ci biir safara mbokk yi juróom-ñetteelu sart mooy an yakfura bi tawaaxiit nit ki pour mbiram wér ci yàlla tabaraka wa taala ak jullitam mu nekk jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg foog mu daal di weddi kéeféer yi foog mu weddi xërëm yi foog nga weddi tuur yi foog nga weddi ndëpp foog nga weddi xonjom yi foog nga weddi xarfa fuufa yi foog nga weddi béjjën yi foog nga weddi téere yooyu nga takk ci sa ndigg bi mbaa sa gal ci gàllaaj googu pettaaw yi xaaw yi nga yaakaar ne mën na lañ laa musal wala mën nañ laa jëriñ ci Yàlla tabaaraka taala fekk tekki woo ko sën jullit du nekk dëgg naka la jullit di waxee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy taxaw juróomi yoon ci kanam yàlla tabaaraka wa taala fekk ndiggam li mbaggab yi ndig ca ca ca ca dënn ba ay ay ay sengoor a nga fa ay xarfa fuufaang fa ay gàllaajang fa ay béjjën a nga fa ci bopp lalam ay béjjën a nga fa ah buntu néegam pour mu dugg béjjën a ko tiim buntu këram pour mu dugg béjjën a ko tiim xam ngeen ne béjjën su mënoon dara du jóge ci bopp ba mu jóge tukulóor yi nee nañ allaadu si na nafanno ummataa koy hóore joomum lu béjjën mën béjjën bu mënoon dara du jóge ci bopp am xar rey xar mi rendi lekk yàpp bi seeñu yax ya der bi nga weer ko ba moo di ko jullee béjjën bi nga jël takk te naan dina la musal wala dina la indil njëriñ wala dina la dàqal lor ak ndof weesuwu ko kon borom bi tabaraka wa taala nee na pour nga nekk jullit foog nga weddi xërëm yi ñoom ñëpp nag nga gëm yàlla tabaraka wa taala dong borom bi ne faman yakfur bi taaxuut wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa la nfisaama laha wa qaala mustafa sallallahu alayhi wa sallam man qaala la ilaha illa allah wa kafara bima yucbadu min duni illah harrama hurima maaluhu wa damuhu haruma maaluhu wa damu rawahu muslim yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam mu ne képp koo xam ne gëm nga yàlla nga weddi lépp lu ñu jaamu te du yàlla yow day sa alal araam naa jël sa deret araam naa tuur yàlla nee na pour ngeen nekk jullit foog ngeen weddi xërëm yi ngeen gëm yàlla kese ngeen jàpp ci buum gi dul fecceeku buum gi dul dagg buum gi dul fireeku muy buumu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaa allahuma ya hadi ihdina sirata almustaqim sirata alladina namta alayhim min annabiyin wa siddiqina wa suhdaa wa salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريدا الا شفيت ولا دينا الا قضيت ولا هجت من هوائج الدنيا هي لك ردا ولنا فيها سلام الا قضيتها ويسرتها وعانتنا على قضائها برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه